شخبرة يوكرر يا كوجند جزبول مريد هو سيرفيس شيخ إبراهيم فال لا لا اله الا الله

borom kawsara am de ay xadeel fayal man gi dootul dandoo am de nattul dandoo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 bokki talib yi bokki julit yi njabootu serigne touba cheikh ibrahim fall ñu ngi leen di nuyu waat di leen siyaare ñu leen baxu nuyo ci touba jinatul mahwa ci resident cheikh ibrahim fall muy pencu mam cheikh ibrahim fall ci kër gi nga xamni fi la cheikh ibrahim fall di yewoo di serigne amdi fall mu serigne modou fall mbend ñu koy ñaanal sun borom nak ak yag gu and ko wir ba liggey bi mu tawul mamam tawul ko baayam yi tawul ko magam yi baax ya ànd ko rakam yi ak mbollem cheikh ci ak mbollem talib yi sun borom dimbali ko ba li yéeneem di ci yene ñu bax ni lepp sun borom kàttanal ko bam def ko ñi nga wajal nak tebeski 2024 di liggéey bi nga xam mo daan bàyyi ko Serigne Touba di ñew keur Cheikh Rafal di batum digel bi waye liggéey bi nak serigne Assane bu baat bi ma na ñew baat bi moom ay wax la daan doon waaye buy delluwaat ki sëñ Tuubaa jëf lay doon mooy jëf ji nga gis nga xam ne tey jii di àllarba di alxames eh, di juróom benn fan ci weeru tabaski tombeeg le douze wala le treize sëñ bi waxoon ni nan xëy si tey jii gën koo laabalal xar yi fi nekk ah ngir bëgg boo demee ci borom Tuubaa Xaadimu sol mel na mu war a mel ginnaaw jëf ji mat na laabal gee ci des moo tax tey jii di alxames juróom-ñetti waxtu ba juróom-ñaari waxtu ci suba di sept heures fekkoon nañu ñu xëy ci teewaayu jëwriñ ci ñenn ñi di jëwriñ ci murit yu bari muy Cheikh Moussa Fall Falilou ànd ak Serigne Djili Fall Falilou ak mboolem seeni rakk ak taalibe yi ñu ñëw fi ci suba leen njëkk nag mooy. liggey bu reuy boobu bu rëy boobu nga deg démb ci 6 h ci seigne Moussa indi won ko mu baye ko ci keur seigne Modou Aminta ci domam ju bax ji wutu ko tok ab tag ab toogaayam di Cheikh Falilou Fall ñu ñaan mu yag fi lol ci ànd ko wér mu indi won ko fi démb tollu ci ñeenti téméré xar ak ñaar fukki million mu jébal ko wajiram di serignam di mam Cheikh Ibrahima Fall di seigne Imdi Fall mu seigne Modou Fall benda loolu lañ xey ci suba génne ko njëkk ko labal ba mu set wicc ñu ñëw ni sëñ saa noppi na ñu doo a dugg nag ci tàbbi ci biir kër Cheikh Fall gi nga xam ni fan lu ëpp doon daje muy sëriñ Amdi ñu ubbi kees yi dàqaxay ñu génn ñu ngi nii di sang di dox di ñëw léegi nga seen sangagun ko kon nag Baay Faal yi réew mi ak bitim réew soppe yi liggéey baa ngi sëñ Asan junni xar ak nangam bàyyi ko fii ci janatul maxwaa ci kilifteefu sëriñ Amdi Fall mu sëriñ Modou Fall Mbenda ànd ak rakkam yi ak seex si ak doom yi ak wóllëre yi ak soppe yi fës ko yéene jébbal sëriñ Seex Mouhamadou Mountakha loolu day sëñ Asan luy tax am murit bokk ci war na ko koo jaral bokk ci nag yomb na ndax day wax deug yalla wax nan ko waxati ko am na atam ci ci jamono Serigne Cheikh jembu mi nga xamni mo jox lengi Serigne Amdi te ko ci togo bi mu yor liggey mamam bi bam joxe juróom ben téeméeri fi de ku ni serigne Cheikh jembu fal yokon nako at momi day am na kàddu yu ñu waxoon ba tey ñu bari ñu ko fatali ko diko ko xel te bobu serigne Assane dama waxon ko ku wax serigne Modou Fall mu tuddu ko seigne Modou Aminta doomi seigne Bassirou Fall alxuraan mu yor lamine appare bi nga yor jël ma ci bir xar ya ko Modou munu faa ma ne ko jël ah, toll ni juróom benn xar mourid bo xamni sa yaaka dafa necc Cheikh ibrahim Fall nga deg ni juróom ben timir xar daje ne Cheikh Fall ko di ko yut seigne muntaha yow nga bok ci Cheikh Ibra Fall ci defoo ci am xar soko ko ak boko ko xamal ni am nga gatch juróom ben timir yoy nak sëñ Assane tey day mel ni boo ko xoolee def nañ ko ñaar ndax yaakaar naa lu mu gàtt gàtt junni bi ak ñaar téeméer moom dina ko jege ndax sëñ see jëmb ba mu joxe juróom-benn téeméer laata mu fi ko yóbbu na xar ci junniy xar junniy xar kon daa mel ni borom pas-pas yi ak borom bëgg yi ak ak ñi nga xam ne ay jaayantekat lañ déggoo nañ lim boobu ba tax laata mu fi bàyyi ko rek fexe nañ yóbbu xar yi ci junniy xar. tey ji nak yaakar na ni sëñ am di ak bëggam ak ñu bax ñi luñ ko bëggal bu soté junni ak juroom ben témir junni xari ak ñaat témir day mat loolu lañ koy ñaanal lim bi na gennagul suñu yene rek lañ bëgg ak suñu ñaan yalla romb ci dooy Cheikh Rafal waye nak ku ci bokkon xamni jëf jaay ni ku ci bokkugul na nga xamni li dañ ci wara gis nga jëruñ yaa ngi nii Badara konté ngi ni di murid buah xamni lu upp ci jur gi muy koor muy magal muy gam muy tebeski lepp ci loxoom la ko sëñam di tek xar yi yëpp moo ko saytu and ko sëñ Assane bu gis nga ko ci parfum bi boole koo laaj ko lañu neex li lepp ci xerté murid la ndax bëgg rek bu sango ba set comme ni ni def ñun ku dugg ci sab salle bi bomb saw yaram ba mu set nga xéñ parfum yor ñap mu sel yor xëside wala nga yor kurus waye Assane da bëggoon xar yi buy dem ci borom tuba xari musul xar dafa am xet motax mu yor bitéel di len ko soti murid yi nga xam dañuy jaayante du ko jox nan xamni fi la ko Assane jëme fi la ko jëme bun sañal xari yi bu ñuy dem ci borom Tuubaa bu ñu ci oto ñepp xamni xari xari laj ko len leen lool nak le seigne Moussa Mbar ñew ju baax jee di wax am murid du wuddu am xelam da koy bayyi muy dox ci dox jëm ci lu baax. melni ku ko gis la nga yaga wax rek yoni deug la. yoni deug la ba Assane yoon wi ku xool lii xam ne la. ñaar fukk ak juróom-ñett mutu ko woon bi doomi bi Cheikh Rafal demee doom yi dem sëñ Maymunta bi mu ko fiy bàyyi ci ñetti téeméer la ko bàyyi sëñ see jëmb yóbbu ko ci junni xar junni xar la ko sëñ see jëmb yóbbu te bàyyi fi doom ji naan moo koy doon de danoon liggéeyal maam rek ñu bari leen daan wax nag di gis war nañ koo gëmee ci moom toog muy dox xam nga ni sëñ Assane seigne Cheikh Jëmb daawul génn bâtiment bi te da lim mu def moy soppi ndogu yi def ko ñama touba yobbu liggéey te bëgg ci jooni xar kon yoon yi dëgg la ku yaakar nak yëf yi du soti téye la nga yor ñun ñi taxaw diko jema saytu ni ñun ñoy saytu xar buñ fi suñu borom indi fi ñu gën defal Serigne Touba bi ak bëggam kon ñun ñu sa borom baaxé ñu dajé jamono ak ñu bax ñi di señ am di señ mu Modou Fall Mbenda ak rakam yi ak domam yi ak cheikh si dajé ci jëwriñ señ Bassirou ji di jëwriñ cheikh khadim di cheikh Mamadou Muntaxa nga xamni fi ne señ assan damay wax ni ñak sax amul lan mo am ñak and ñak amul ñak ànd dojo ma joxe do do joxe xam nga amna ño xamni fi ne dañ wax ni ëgseegul lolou worul gal gi day dem lu waay bëgg mu yóbbaale ko bu nga teg ko ci lii moom comme xise raw jirul ngay jéem a dàq gaañu doo leen jot ku ci it jirul nga geesu ku topp sa ginnaaw dootu la jot yoonu amul niji am na woote ba weeru diggi wi teroo la siñ am di faal tàmbalee soññee ba tey di juróom benn fan bu xëyee sëb xare ci oto yóbbu ko bu kenn wax ni amoon naa yéene ndax ba doon yéene kese suñu bi sàkkoon ne jumaa ju toll nii bu doon yéene kese jumaa ji du nii yéene kese donc du tax kenn jënd xarum tudd kon yéene day ànd ak jëf da jëf ba sa doole jeex la ca des nga yéene ko suñu borom mottali la ko ñi ngi sant nag murit yëpp di leen jaajëfal di ñaan rek kenn ku nekk gën koo bàyyi xel ca kenn ku nekk nga jéem koo waaje wut foo ko yeew ngir boo xare dajee sam xel mën a dal waaye bokk ci nag ci joxewoo ci dara comme mën a doon ci àdduna amoo xel mu dal ndax li wóorul alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cheikh Ibra yow ko réer ya ko ginde. gesbul Mouride au service de mam Cheikh Ibrahima Fall.